suñ doom la. di nuyu sëñ Cheikh ndigal mii. di nuyu sëñ Cheikh xam suñ doom la te mag bi fii na toog ci sëti Cheikh bi la. di nuyu sëñ Cheikh mi nga xam ne suñu doom la di mag ci bi nga xam ne sëti Cheikh lañ nekk. maa ngi nuyu ñëpp. maa ngi nuyu maa ñëpp. nuyu bokki talibé yi nuyu bokki talibé yi delu di santat mu ne serigne mi ngi delu di santat bis bi nga xamni mu ne bis bi nga kon daw dañ kan lu fer kan ñaan ne ñi ñaan mu fek ñi ñaan ay at. li may wax nag. mu ne li muy wax nag. dama ko bëggoon a gàttal. mu ne da ko bëggoon a gàttal. te bàyyi sama rakk ji. mu ne te bàyyi rakkam ji. mu at mu àggaleel ma ko. mu àggaleel ko ko. maa ngi nuyu ñëpp. sëriñ bi nee na mi ngi nuyu ñëpp. di soññ ñëpp nag. di soññ ñëpp nag. ci lii ñu jóge mu ne si lii ñu jógee. ak liñ jëm. ak liñ jëm. ndax kat. mu ne ndax kat. wàllu Baay Faal kat. mu ne ndax wàllu Baay Faal kat. amul noppalu. amul ak noppalu. dañoo jóge ci lii. mu ne dañoo jóge ci lii. jëm ci lii rek lay doon. jëm ci leneen rek lay doon kon nan nan xam ne moom. mu ne kon nañ xam ne moom. moomuñu suñu bopp. mu ne ñun de moomuñu suñu bopp. amuñu suñu yëf. xamuñu suñu yëfi amuñu suñu yëfi tëgg amuñu suñu yëfi lépp sëñ bee ko moom mu ne lépp day sëriñ bee ko moom kon lu ci waay am mu ne kon lu ci waay am lu ci waay am ci dooleem mu ne lu ci waay am ci dooleem na xam ne sëñ bee ko moom na xam ne sëriñ bee ko moom lu waay am ci maqam mu ne lu waay am ci ñaqam na xam ne sëñ bee ko moom na xam ne sëriñ bee ko moom loolu nañ ko gànnaayoo mu ne loolu day nañ ko gànnaayoo maa ngi nuyu mbokki taalib yëpp nag sëriñ bi nee na mi ngi maase di nuyu mbokki taalib bi yëpp nag nga xam ne lii ñu jóge mu ne nga xam ne lii ñu jóge ak liñ jëm ak liñ jëm luñ ci def rek mu ne luñ ci def rek ñoo tax mu ne ñoom day ñoo tax ndax mënuñu dara mu ne ndax day ñoom day mënuñu dara ñoom ñoo man mu ne leen di yéen a man kon nag ñoo ngi leen di ñaanal mu ne kon day ñi ngi leen di ñaanal ñu man ngeen man ba di ñu manal ba di leen manal jërë ngeen jëf ngeen mën jërë ngeen jëf kon jox sëñ Cheikh Fall mu eggalee kaddu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سد لساني نوير جناني سد الأماني وسد براي سنسط دير لقط مير فلتك جورا من يراي أنقذ إيادي من الضلال وبالألال خذ السراي خني كتاب وقل الكتاب وقل مطابي السراي يا خير ربي خير مربي تايب تخبي بهدة تجاي صلي وسلم على المتمم كل يسلم بذنتاي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه خدمه وموته وسلم تسليم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ñu ngi leen di nuyu bu baax tàmbalee nuyoo bi ci sëñ Abdou Fall Roqe mi di sa xarit sëñ Mortalla di ci teg mboolem ñu ngi ko bokkal ak sëñ Cheikh Roqe mi nekkal sëñ Cheikh Fall Baye Góor di leen gërëm ci seen i taxawaay ak seen pësteef di gërëm nag mboolem taalib yi ak bokk yi ak xarit yi ci taxawaay ak pësteef bi ndax lii nu bokk di liggéeyal kat sëñ Cheikh Ibrahima la ko sëñ Tuubaa santoon te ba mu ko koy sant da ko newoon dabee ndab kon nag defe naa ña doon daw waman tabi bi saan ilaa mi din lañ doon daw defe naa gaa yaa ngi toppaat ci ñëw kon nag nañ fexe ba tànk yi rafet doxin yu rafet góor góorgóorlu ci sax ci jub sax ci taalibe sëñ Mor ci la nekkan sëñ Moussa Fall nekk ci bi Ibrahima nekk ci sëñ Moussa nekk ci sëñ Mor ba ci sëñ Aliou ak nun sët yi ba ci sunuy doom nekkaat ci loolu nag noo ngi ñaan ma sax ba faaw li fekk yoonu murit ngi dox daal lislaam taxaw waman tabam bi isaanin daal ilaa yawmi diin lañ wax yawmi diin yi jotagut tëjëgut buntu ba fa jëm kon nag nañ góorgóorlu ci doxin wi ak taxawaay sant nañ sa yëpp bi sant sañ ceex sant mboolem doom yi ak taalibe ak rakk yi dama leen naan fi ne ah, foo gis bopp bu raay wagawu raay ko ci yóbbu nun nga bëgg na ba tey noo ngi leen ci sant di leen jigéen tey mi la nga ca def ci sant nañ la ca dégg nañ ci sa taxawaay ñaan yàlla yokk leen yokk xéwal dooli sutura yi doxin woowu ñu gën koo man ndax dama leen liñ naan ilay xaadalaaw ma lam yokk mumkin wala yakunu abadan li mumkin señ bi de luñ ko ne am na ko lu kenen amut man fexe la ci japp ndax julli juro mok ñi ci def ko bok bok ak ñom alquran bok ñu aj mak ak natas ak cheikh ibrahima dong la am teewu ñuko nga la nu nak noy jenn ala ju señ tuba am te kenen am ko non fonk li ñu yor gor gor ci yeer gene def ni ñu ko defal ñaan man ko deewu ko diko gëna man ba faaw ndax fi ne am na ña fi nekkan daaw te fekkuñ ko bu ñëwaatan ren dañu def lu ko lañ defal kon nak ñi fi nekk nañ ci gën di gor gor sunu xol seet na jërë ngeen jëf ne yok yokk xéwal yokk wér yi yokk wërsëg yi dolli sutura yi sëñ Cheikh mi nag doxeenu baayam ak doxé doxeenu maamam la dox ndax sëñ mustafa dama leen da daan woo sëñ Aliou bu ak mom ba genn ne ko fi ne buñ ne léegi la jóge fi magam kenn du la ñëmé wax ci man dara buñ ne léegi la fa rakkam jóge kenn du ko ñëmé wax ci kenn du ko ñëmé wax ci mom dara ne ko man yaay sama rek mortala asanay rakkam ji day defir wo da ko yag dox sëñ Cheikh Fall dox ko digam sëñ ali dama naan carrière da daan yónnee ay fàllare ak i gàtt ak ak i kilé mu yónnee ko sëñ Aliou di ko jox nangam xulle moomee Moussa Khoule ak ku ñu daan Cheikh Taal Cheikh Taal mu ndaw ñi daa ko indi ba mu fi jógee kii mi daan ko def Naar Diouf ak Daam Faalum Jogo ba ba ci man mi de daan yónni ci man looleen nag sëñ bi jàpp na ko seen ci yoonu Baye Fall gépp la ko jàpp sun sant sun xol sedd na seeni taxawaay rafet na ñu ngi ñaan yàlla yokk xéwal dolli sutura yi taalibe yépp noo ngi leen di gërëm ndax dama leen naan li loo saxaar jël lépp ci paas bu doon bopp kese ba du ko yóbbu xaju ca waaye man di duy bu ñu leen bàyyiwoon te ñu bopp duñ dem kon nag na bopp yaa yàgg ànd ak waago yi sëñ Tuubaa yàgg ànd ak Cheikh Ibrahima yàgg ànd ak yéen jërë ngeen jëf euh, nga xamante ni mooy ci pencum Badène kon julli nañ ba pare ci teewaayu sëriñ Cheikh Ndigal ak mboolem njaboot bi sëriñ Cheikh. yal na seenu fan gudd.